Euh, Karim. yan kàddu la. Euh, ñoom yu jugé ne que Cheikh Oumar Diagne dafay manquer respect euh, seen ay kilifa. tey jii Cheikh Oumar Diagne pour ne pas vraiment gêner euh, liggéey Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko. Euh, tay est-ce que warul xoolaat aussi ay kàddoom mi nga xamné ne mun koy yëkkati parce que ñom dem nañ ba jàpp ne euh, fu mu toll ni euh, Cheikh Oumar Diagne dafa war a démissionner si postam bi wala président bassir Diomaye fay dàq ko japp nga ni mun nañoo dem ba pression bi yéeg ba ku melni comme le président bassir Diomaye fay tégg ndoom ba tànk kii di le professeur Cheikh Oumar Diagne Bassirou Diomaye Faye moom den na ko am président bis bu tekkee ndombal tanku Cheikh Oumar Diagne mm. na paré pour tekki ndombal tanku Sonko na pare pour tek ndombal tanku kenen parce que ñi juk di manifester tarixa taxu leen juk seigne Sëñ Tuubaa yitteelu leen Sonko leen ni déranger système bi fi nek mo leen neexul dañ ko xex bay bëgg dé mënu ñu ci dara ñu né xaaral ñu gis benn prox dool du ci langaaw du ci agrippé wu. Sëñ Tuubaa taxu leen juk jug malik Maalik taxu leen a jug Bañas taxu leen a jug ndax xeexee nanu Sonko nu né hmm. booy yi fii la ñu leen jàpp di xalé yu ndaw yu am 12 ans japp leen dugal ci kasso bi di leen tëj di leen door di damm seen loxo yi dégg kan nga ci dégg si ñoom mu waxoon mu waxoon xoolal su président Diomaye ne waa ok kon ñii di wax nii ok comme li ñu wax lii lañu wax xaaral ma ma jëlee fi Cheikh Mate Diagne ñu ne su fi jëlee Cheikh Mate Diagne ñooñu dañuy jógaat de hmm. ñooñu Diomaye moo leen neexul ñooñu régime bi moo leen neexul. Hmm. ñooñu Ousmane Sonko moo leen neexul li hmm. waaw kan nga ci gis responsable mu murid responsable. xoolal di dund Serigne Touba dëggantaan di dund diine dëggantaan di dund sunna du jeex foofu Touba.

moom moom gàcce la ko wax waajur ah, dama rus ci Aboubacar non defal naa ko ma expliqué la rek ah ma gub yàgg nañ ñu ñoo créé And Samm man xola And Samm jikko jikko yi ñoo ko fa jiitu moom moom mujjee ñëw fekk créé nañ li ñuy créé ba teg collectif non à l'homosexualité ba moom ñu teg suñuy coordination teg lépp moom moom mujjee ñëw ba pare nekk ci di jàmbaka jaxaseeg ba ba nekk coordinateur bi mm. xola non xam naa li ma la Aboubacar Mboup xola moom moo la gën a xam ni Cheikh Omar Diagne dafa respecté tarixa mais Awaakum dëgguwul. def na ko fi bi Cheikh Omar Diagne amee problème ak Jibril waa mu dem toog Walfadjri di saboté di wax du n'importe quoi Cheikh Omar Diagne déggaat naa ko aussi muy defar ay audio mais moom moom li mu wax lan la siy gagné. Cheikh Omar Diagne li mu nekk nii defu fi lu tax ñu war ko mën a ñu war ko mën a ñu war ko mën a jàpp di jëm di ko diaboliser. alxuraan dafa leer su sunna yàlla bi dafa leer naññ mag ñi seen liggéey daa leer naññ Serigne daa bind lu leer naññ man gisuma ben yoon fo xamanteni ku top Serigne Touba deugal ko gem ko diko taxaw diko taxaw ci diine bi laax nag parce que yonent bi dafa ne mm. diine bi li ci war mom moo ñu ci war ñun ñep mm. li ci war Cheikh Omar Diagne mo mo ci war man mo ci war ababakar bu mo ci war kenen ak kenen kon ñun diine bi dañu war a ba formation yi nga xamni Cheikh Omar Diagne yàgg na leen xeex ak goor jigen yi ni bañ di dem di fondru ci masse bi di def ay manipulation ak politiciens yi pour dé pour yaq ben nit te buñu paré ci koku parce que jomay mo lañuy déranger régime mo lañuy déranger buñu paré ci Cheikh Omar Diagne dañuy songu songu buñu paré ci songu songu songu jomay ku ku ci yaakaar ni yaa ngi non sëñ bi ñii sëñ bi intéressé wu leen de bu leen intéressé woon milliards yi ñuy def ba dugal ko ci gàmmu yi ak màggali ñu def ko ci xaside sëriñ yi mu dugg ci école yi mm. est que da nga wax lu si gagne-pain lañ ko def te man nag man contre ma état yëkkati subvention jox ko waa Touba yëkkati subvention jox ko waa waa waa Tivaouane waa Kaolack contre ma loolu de mm.

ñoom bu ñu ko sax ñun nañ ko nañ ko ko engagé nekkoon démb discours am musul changé ca la mu nekkoon bëgg dem ci la nekk ba tey te loolu moo ko def ministre tey hmm. changé wul te Cheikh Omar Diagne wala benn affaire billaahi wallahi boo xoolee Mame Ndao laay xoolee Cheikh Omar Diagne que dama ko xam xam naa fu ragal yàlla am toll hmm. Cheikh Omar Diagne ko la léegi ñoom leen dal ci Cheikh Omar Diagne dañoo xamul kan lañ amal affaire Cheikh Omar Diagne nekk ci biir palais bi ak toog maasati leen di jaay omo lay yemale <laughs> non man man man dama fréquenté Cheikh Omar xam ko yoonam nekul ci ginnaaw yi ñuy def ni du delu ginaaw yota ci limi wax ci lo xamni fek mi ngi koy teg ci sunna ak alxuraan du ci delu ginaaw man ma la wax lool fek mi ngi koy wér ni mom toñul Serigne Touba te li Serigne Touba wax mom xam ni Serigne Touba mom la andal mom sama jaag du delu ginaaw te kenn du ko delu ginaaw legi nak gaay yi wara war a seen politique yi ñu def ñi ci politique lañ ne ci politique nekkun ci leneen lu dul politique que seen politique bobu ça va pas marcher ñom ñoom moomuñu Baye momu ñu Serigne Touba momu ñu moomuñu malik momu ñu mag ñi mag ñi ñu ko bok ñun ñoo doon mag ñi ñun man lépp lu seigne touba doon xex man dama koy xex ba billahi bima demé ci seigne moutakha dama ko wax billahi wallahi seigne moutakha dafa na ma lépp lu ma ngi doon xex moom ngeen di xeex. ah oui seigne moutakha jàpp ñoom mo waxal seigne moutakha lu mu waxul. seigne moutakha Mutaxa moom wax ne. ñu expliquer mo mu ne ma leen li ngeen ni xex lépp lu seigne touba doon bañ di ko xeex moom ngeen xex xeex. macha allah loolu la Cheikh mo dañ ci lolou la Cheikh mo dañ nek di. waaw léegi gars yi dañu bëgg lan politique quoi diko politiquer quoi man mais man mais man des fois des fois pose la question léegi nag pression ak fitna bi ñu bëgg teg nit ñi loolu ñuy réew moom ful rek moo ko yor <laughs> Serigne Touba mais toll ku toll ni Serigne lay bàyyi ngay nangu nit di la si ëppale wala nga taxaw di naan da ngay ŋaañ wàllu yàlla di yàqu mm. lu nit mën ci Serigne njabootam gi nii lan si nit mën mais ñun nag dañoo bëgg ñun parti bi nga xamante xola parce que kër goo dem am na mbalit mm. mais nag mbalit boobu noonu duñ dañ koy teg ne. Serigne Touba li mu woote ku ci nekk sax doo nekk sax ci détail politique yu ñàkk fayda yi nii doo ci nekk. Karim dafa mel ni émission bi jeex na. ok <laughs> yaakaar naa ni li ñu waroon waxtaanee yëpp waxtaan nañ ko Karim. Mhm. Hmm?